yi wër ñu kàpp malaaka yi wër leen kàpp te benn kàddu rek mooy jub karo hmm. da wax ko hmm. na kenn ku nekk ci yéen bàyyi xaltine ci ne tu seras tout seul propre tombe et tu seras comptable aussi de tes actes kon nañuy rafetal nañuy rafetal parce que ñu borom moo wax ci sóoratu Hud ni inna laaha naka man yàlla laa yudiihu du neenal mukk ajaral muxsiniina jëfi way rafetal waaye moo waxaat ci même saar bi ca kaw ni inna laaha laa yahdi kaydal xaa'idiina inna laaha naka man yàlla laa yahdi du jokk mukk kaydal xaa'idiina jëfi jëfi way way way kuy def lu toj toji ay toj toj wala workat nañ génn ci suñu biir tout ce qui contraire à l'éthique tout ce qui contraire à la morale tout ce qui contraire à ce que euh, ilmu nafs lépp loo xam ne dafa contraire à la sociologie ilmu nafs c'est la sociologie en arabe nekk nag bay baynal xaw fu war rajaa ci diggante ragal yàlla rek ak yaakaar la parce que loo def tey bu ëllëgee di nga ko nettali bis bu nekk ngeen dégg ñu naan diw sama xaritu benn bakken la sama loolu wax bu yàqu la de sa jëf rek mooy sa xaritu benn bakken parce que buñ la yëkkatee di la dugal ci bàmmeel moom rek mooy nangu jiitu nga nga nga dóor sa karnopp ci kawam kon nañ rafetal jëfin yi nañ rafetal jëfin yi parce que sa salaaw bi ahkamil na lépp loo fi doxal tey bu ëllëgee dinañ la àtte ca sa jëf joojee kon nañ jéem a rafetal diggante yi depuis un certain temps la sociologie policière a beaucoup évoluer il a des choses qu'on ne nous reproche plus mais ñaw la nag du teree dàggi paaka bis bu ne maa ngi leen di romb Thiès di dem ak a ñëw parfois vous me voyez parfois vous ne me voyez pas yéen ñëpp mën ngeen a waat xam ni du ma gëj waawan yéen ñëpp bu ngeen ma gisee ak bu ngeen ma gisul mais am na yoo xam ne bu amoon dinaa seere droit fii woy walla ma woo kilifa gi wax ko mais sincèrement gis naa ci yéen njub moom laa liiran bien vrai que yeneen a ngi yori yat mais man njub gi laay xool parce que erreur yëpp man yu ñu mën a rectifier la comme yu ñu mën a rectifier la nag man du ma sonal non non non jamais jamais te yàlla daf ñu bind nag def ñu njiit dénk ñu leen pour ñu am nu ñu taxawee ci seen kanam taxaw bi ñu war a taxaw seen kanam taxawaayu kilifa la taxawaay ba ñu war a taxaw ci yéen mooy privilégier le sens de l'humain dans les rapport entre police et population loolu moo ñu war kon na ngeen gën a góorgóor gën a soññaat seen bopp ku gis sa moroom def lu jaaduwul boo ko mënee dindi dindi ko boo ko mën la dindi am na benn xarit ci biir groupe bi demal ci moom mu dindi ko yéen a mën a rectifier parce que yéen yendu yéen fanaan ñun on est à un niveau beneen niveau bu ngeen rectifiantee du ñu ci jot mais bu ngeen waxantewul dëgg bis bu ñu ciy jot day fekk mu metti waaw te ñun ñëpp dañ jaar ci ndaw comme yéen kon war nañ leen mën a comprendre mais nag on a toujours accepté de se remettre en cause d'avoir un esprit critique la critique et l'autocritique vous devez l'ériger en règle de conduite avec le temps viendra tout à qui s'y attend, comme le disent les Ivoiriens. Euh, ok.